kon leeral TV Momo du ma ne duul journaliste nag ay journaliste lañ Momo bu nekk leeral TV yéen a ngi koy fàttaliku génnoon na fii ci benn émission toog Ousmane Sonko yor naa deux vidéos deux vidéos yoo xam ne benn bi montage la waaye benn bi réel la <laughs> xam nga gars yi dañu mën a fen funki nag. benn bi ragal la moom moo bu leeral TV bi nga xam ni kii moo ko moom bi nii mu tudd daam moo ko moom ok après gars yi dóor ko pression gars mu daw mardi bii passé moom moom moomu Dior Diagne da ko woo da ko convoqué Pullman mardi bii bii bii jël cent millions teg ko ci table bi waaw moomoo moomu yaa ngi nekk fàtte ko moomoo boobu doon wër di ratatati yor naa vidéo vidéo boo xam ni dem doon liggéeyal Dame Dieng yor naa vidéo Ousmane Sonko man maa ngi di jàkkaarloo moom nii gis naa vidéo bi moomoo Cissé xam nga dañoo mën a duul mais fu nekk nii nag daw nañ ñëw ci man pour ma dimbale leen de daw nañ pour ñëw ci man dimbale leen de billaahi wallaahi moomoo dafa doon wër télé yeeg rajo yi di wax ne am na vidéo moomoo Cissé yor naa vidéo vidéo Ousmane Sonko moo xam ni man ñu jor naa ko deux vidéo la benn bi original la benn bi du original mais xool original bi maa ngi ak moom bu bu Adji Sarr bunt bi après Ousmane Sonko dugg après du ma wax lépp détails sax boo ko bëggee wax xam nga du ma wax lépp ñu ne ko ñu ne ko kaa ñoo joxe vidéo bi waa ji bàyyi leeral TV bu daam jeen dem yoonam mardi bi passé Dior Diagne da ko woo convoqué ko Pullman mu dem ba foofu mu jël cent million tegal ko ci taabu bi <laughs> na ko léegi dama bëggoon nga jox ma vidéo bi vidéo bi ngay wax nga jox ma vidéo bi waaw ba naan war na ko yaayam vidéo boobu mu naan mu ne mu ne ko daf ko effacé mu ne dafa effacé vidéo bi parce que amul y rien de méchant y de rien de méchant Dame Dieng woo ko Dame Dieng woo ko direct di ko saaga ay ndey di ko menacé ne da koy rey nee na ko du ko tëj kaso du ko dóor da koy rey jamono jii nag sa vie est danger sa famille m'a interpellé pour ma def le plus rapidement euh, une communication envers son euh, seen doom Momo Cissé bi nga xam ne daa génnoon ne yor na vidéo xam nga ñii ay dëmm lañ ay nooxóor lañ moom Dior Diagne woo na ko teg cent millions ne ko boo jëlul cent millions yi mun naa la yóbbu seen waa kër yépp Europe soit nga jël cent millions yi boo bëggul cent millions yi nga jox ma vidéo bi nga doon wax vidéo bi nga doon wax naan gis nga Ousmane Sonko mu def lii mu def laa nangam ak nangam boo boo bëggee aussi ba nga naan war nga ko sa yaay dañoo bëggoon nga jox ñu ko boo ñu ko joxee moom Dior Diagne pour man mardi bii passé bii passé bii bii bii bii tey la lan tey la tey la samedi mardi mardi mercredi jeudi vendredi samedi cinq jours la defagum. mu dem na fa moom Momo Cissé dem na fa wuy ji Dior añ mu jël cent million teg ci taabal bi na ko jëlal jox ma vidéo bi wala boo jëlul cent million yi sax nga jox ma vidéo bi ma yóbbu seen waa kër yëpp Europe Momo Cissé bañ ne ko dafa effacé ne dafa dafa effacé vidéo ba ci saase dañu dafa génn rek Dame Dieng woo te bàyyi na foofu de Dame Dieng woo ko ne ko dañuy rey seen nangam tàn nday dinañ rey seen yow yëpp lañuy rendi seen nday seen waa kër yëpp Dame Dieng di ko menacé de mort di ko saaga ay ndey ne ko vidéo boobu noonu boo ko gis dinañ nangam tam sa ndey seen waa kër nag dañoo jaxle seen waa kër dañoo tiit seen waa kër jamono ji toogatuñ lekkatuñ naanatuñ nee nañ euh, Dame Dieng bi seen doom menace de mort nee da koy rey nee na da koy rey nee dina ko assassiné donc seen waa kër nee nañ ma dimbale leen teel leen a wax ne moomoo génn na ci yorut vidéo jegewut vidéo xamut vidéo xamut vidéo yorut vidéo jegewut vidéo donc lépp lu dal Momo Dieng Dame Dieng la Dame Dieng bu leeral a menacé de mort Momo Dieng naan ko boo génnee vidéo boobu fenn ma rey la boo joxee vidéo bi kenn ma rey la te vidéo bi yaa ngi moom te na nga denc vidéo boobu buñ ko gisee ma rey la ba ma laajee it ñoom nee naa leen comme nu mu koy waxee nee naa leen mais vidéo bi lan moo ci ne déglu leen vidéo bi lan moo ci ne de ñu ne Sidi Mouhamed Mbaye moo jëloon webcam xam ngeen webcam bu ndaw webcam mu jox ko Adji Sarr pour si 17 femme 17 jours yi bu Sonko di ñëw Adji Sarr teg foofu webcam webcam bi Sonko ñëw Adji Sarr ubbi bunt bi moom moo jeex mooy wax rek Sonko ñëw nee na vidéo bi lii la Adji Sarr ubbi bunt bi bu mu ubbee bunt bi Sonko ñëw dugg et dugg ci toilette yi summi mbubam bi tëdd ak tubéyam ak serviette serviette bu mag serviette bu mag nee na mu tëdd ñu maase ko bu mu paree Sonko dugg ci toilette yi buy dugg ci toilette yi dem ñoom Adji Sarr dañuy génn Sonko bu dafa dugg ci toilette yi summi mbubb mi nee na de jël sol tubéy ba léegi su miir tubéy nee na teg ci serviette tëdd ñu maase ko mu dugg ci mu dindi serviette bi sol tubéy ci tubéy dugg ci jacuzzi bi aji saar di dox mel ni koy génn ci bunt bi faxastalu ko ci def nee na moom moom mooy wax ne faxastalu mel ni kuy daanu nee na Sonko tëb ci jacuzzi bi ak tubéyam tubéyam tubéyam ci jacuzzi bi di jéem a jàppale Adji Sarr pour mu jóg parce que Adji Sarr def na fa benn genre faux pas bu muy génn ci ci ci Sweet Beauté ci ci ci fu ñuy maasee salon de massage bi Adji Sarr def benn genre boobu ñu ngi teg seen webcam Adji Sarr def benn faux pas daanu Sonko di jóg bu muy jóg fekk Adji Sarr jóg na Adji Sarr génn Sonko moom mooy wax de moom moo jeere nee na loolu la yor de Sonko génn mais nee na loolu kese la Sonko violé laalul Adji jegewul aji saar nee na lii la ma ne ko après après la mu ne foofu la vidéo bi taggee mu nee video vidéo boobu mooy original leneen luñ fa génn ay faux la nee na moom ñaari vidéo ñoom ñoo ko monté moom moom nee benn bii moom original la bi ma leen wax nii moom moo jeem moom moo Cissé wax de na bii mu leen wax nii original la na boobu moom gis na ko ma ne ko anamu mu ne ma dañ ko dañ ko effacé da ko effacé mais mu mu nee na daam jeen yor na ko ok benn GoPro moo ko jël boo xam ni Sidi Mouhamed Mbaye moo ko joxe mais foofu amul viol awul dara dara dara nee na boobu noonu moom gisu ci lu intéressant loolu la wax nee na y a rien de méchant dara amu fa moo boss le daam Dieng le directeur m'a appelé di ma menacer pour la vidéo le même jour que j'ai quitté Dior donc le même jour bu ñu quitté Dior Diagne moom Dame Dieng mi ngi koy woo di ko menace ay menace de mort man bés bu ma gisee vidéo bi bés bu ma nangam Dame Dieng il faut la merde là-bas kenn ko tëj Dame Dieng kilifa porte plainte na ko mais musuñu ko jàpp musuñu ko woo gis nga nguuru Macky Sall ay xaj ñoo ci nekk di def leen neex mais le news national même Dame Dieng nañ ko war a news il fait partie des imbéciles de la pire espèce bien protégé par Macky Sall képp ku Macky Sall protégé news national bi dañ la war a noq le noq national dañ la war a noqaale pour muy clair ok léegi Dame Dieng mi ngi menacé Momo Cissé man moom damay xam nga ne man nee naa leen comme ni ma koy waxee rek noo men si leen laa damay indi information yéen xool ba xam est-ce que il mérite ngeen sauver ko wala na en tout cas Dame Dieng nee na da koy rey daam jee nee na da koy rey man tamit bu ma njaboot gi jege see na ma ma dimbale seen doom ña ngi koy menacé de mort mardi bii passé Dior Diagne yóbbu invité na ko Pullman tegal ko cent millions pour mu jël ko wala mu yóbbu njabootam yépp Europe daa moom moomoo bañ ne ko sax vidéo bi je xam nga loolu leer na je l'ai effacé donc loolu moo tax ñu koy menacé de mort mais Ousmane Sonko ba yowmal xiyaam amul benn vidéo benn vidéo bu usmaan Sonko di violer Adji Sarr loolu amut te loolu wax naa la ko depuis le début de l'histoire ne leen affaire yi vidéo amu ca amul benn vidéo bu ci nekk bu nurook viol ay fen la te ñëpp ñu toppoon Adji Sarr ci fen yooyu ñëpp daw wax leen ma kan Adji Sarr sax dugg na ci live di wax naan depuis bu complot bi amee ñëpp a daw kon Adji Sarr na complot la doyen des juges invité na madame Tall madame Tall nekk complot la ñibbi doyen des juges invité na le capitaine Touré capitaine toure ñëw ne complot la ñibbi doyen des juges invité na le docteur Alfousseyni Gaye gynécologue Alfousseyni Gaye dugg ne ko complot la doyen des juges invité na Serigne Adji Sarr MC Niass MC Niass ñëw ne ko complot la doyen des juges invité na ki ñu wax ni complot bi moom moom moo ko violé mu Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñëw na nee na complot la doyen des juges invité na ci ñëpp ñi nga xam ni presque rattaché wu nañ ci affaire bi ñëpp dugg nañ ne ko complot la Adji Sarr wax na ci live complot la ñam doon àndal ñëpp a daw ñëpp a daw génn dugg na nee na complot la ki nga xam ni mooy euh, ndaw si nekk Amérique bu xasaw ndaw si xasaw soosu mel ni hippopotame bu nekk Amérique ñëw na nee na complot la ñoom ñëpp génn nañ ne complot la amuñu vidéo benn vidéo lañ am buñ monté te Momo Cissé nee na ñoom ñoo ko monté benn vidéo la nee na te Momo Cissé ne ne ñaari vidéo moo am benn bi dañ koo monté nee na benn bi dañ koo monté ñoom ñoo ko monté ci ñoom Dame Dieng ñoom ñoo ko monté beneen bi nii la demee moo nu ma wax nee na lii kese la te yaa a rien de méchant y a ni vol ni viol ni violence li li ma leen di wax nag c'est pour vous préparer à ce que injustice du fi am ay fen du fi am yéen a ngi fi déggoon seen groupe boobu noonu Adji Sarr bu mu fi doogee jóg groupement boobu groupement boobu ñëpp a daw. yaa ngi fàttaliku groupement boobu xaw ma nu mu tudd CONAS xaw ma CONAS genre CONAS yooyu la CONAS voilà Adji Sarr amoon na fi groupement bu tudd CONAS. caga ji sew si nekk ndakaaru caga ji sew sa nekkoon Fatick ca àll ba caga ji sew sa nekkoon siin saalum yéeg dajaloo ndar paan yi yàmbalang ya ñëpp dajaloo mel ni aji saar tantay aji saar ya maamu aji saar ya nijaay aji saar ya aji saar ya umpaañu aji saar ya nga xam ni seen ndir ndar paan yi yàmbalang la def ñu ñëpp dajaloo konaas nañ aji nañ ko aki ana konaas laaj leen ana waa konaas ana caga ja ana cagay ndakaaru njaay ana cagay Fatick àll àll Fatick ga ana cagay eh, Sénégal ya dajaloo woon ca CONAS ana ñu ana ñu <laughs> ñoom ñëpp nee nañu yow yow remantañ seey donc jàppale ni le noq national leeral TV waru fi desati lu noq national Dame Dieng waru fi toogati lu news national képp ko takk ci dil bi Dior Diagne te ñoom ñi ngi continuer parce que nee naa leen fi aji saar nekk fi Adji Sarr nekk ki nga xam ni moom mooy euh, maître man balaa maa dee ñu naan maître joor Diagne man <laughs> yooyu may ree la may def <laughs> Dior Diagne jëndi diplôme Dior Diagne français bu baax sax mënu ko wax ñaan maître Dior Diagne Dior Diagne caga bi ba léegi mi ngi ndakaaru di piloté complot di wut ay di wut toog ba léegi ba siñ jonn yàlla tey Dior Diagne ñuy wut ay vidéo yoruñ dara loxo vide lañ demee vide loxo vide lañ demee guerre ma ngay wër di duul di wër ay di pare pour mais Dior Diagne lan la fi liggéey ba yor cent millions bu mu bugg a jox Momo Cissé pour mu jox ko vidéo <laughs> vidéo vidéo boo xam ni sa waay dara nekku ci dara anam anam donc lépp complot la soyez prêts man daal loolu laa leen wax yéen soyez prêts soyez prêts le news national le noq national le news national le noq national pour Dame Dieng pour joor Diagne pour Mamour jàlloo pour Maître Sow Gabi Sow pour Ahmed Sidi Mbaye pour Adji Sarr pour képp koo xam ne taq na ci pour tonton Koli Ibrahima Koli pour euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Viviane pour ki nga xam ne moom mooy Ñambe Sarr le chauffeur donc kaale pour Mamour Ba Thiam léegi kaale ma jox leen réquisition téléphonique yi Dior Diagne ci fama 17 jours yi Dior Diagne presque woote na plus de 132 fois ci numéro yi ñaari numéro yi jël leen Dior Diagne 70 Dior Diagne woo na Adji Sarr Dior Diagne woo na Sir Mohamed Mbaye Dior Diagne woo na woo na Maître Sow Dior Diagne na Viviane appel yëpp presque soixante-douze fois yu mu def ci ay appel ci couvre-feu bi ci couvre-feu bi jamono jooju jël leen woo na El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf jël leen Dior Diagne 77 ñaari numéro la la utilisé 77 224 68 94 77 224 68 94 ak 77 638. 43 30 77 638 43 30 ñaari numéro yi Dior Diagne woote na ci des centaines de fois réquisition téléphonique yi Dior Kooba woote na ci numéro yi jël euh, noté ko ngeen épinglé ko Dior Diagne 77 224 68 94 ak le numéro. 77 638 43 30 Dior Diagne numéro yi la utilisé ci complot bi yépp Adji Sarr biñ doon woo tamit réquisition téléphonique yi Sonatel wane na ni Adji Sarr yor na ñaari numéro yu mu muy wootante ak Tigo 78 633 81 80 Adji Sarr utiliser numéro bi 78 633 yor na tamit numéro réquisition téléphonique yi laa yor ñu may laaj numéro yi réquisition téléphonique bi laa yor appel yëpp génne nañ yëpp Sonatel ak Tigo 76 217 95 17 Adji Sarr yaari numéro yooyu la Adji Sarr 78 633 81 80. Adji Sarr 76 217 95 17 Adji Sarr ñaari numéro yooyu lay utiliser ñoom ñëpp ku ci nekk ñaari numéro nga yor ok voilà 78 633 81 80 76 217 95 17 Adji Sarr ok Ahmed Mbaye Sidi Mohamed Mbaye ñaari numéro téléphone tam la utiliser ci complot bi yëpp. les fameux 17 jours yëpp ñaari numéro la utiliser Sidi Mouhamed mbay jël leen 77 réquisition téléphonique yi nee na Sidi Mouhamed Mbaye aussi feeñ na ci appel téléphonique yi entre moom Adji Sarr Dior Diagne Mamour Diallo mais ñoom ñëpp gang boobu yëpp ñoom ay connexion bu doy waar moo am ci woon seen moo ne moo ne woon seen diggante ci 17 jours yi donc ñu dem ci Sidi Mouhamed Mbaye Sidi Mouhamed mbay yoroon na ñaari numéro 77 316

34 Sidi Mouhamed mbay ñaari numéro yi la doon utiliser ci réquisition téléphonique yi ñuy génne Sonatel wane na ni Sidi Mouhamed Mbaye mi ngi woon 100 pour cent ci complot bi 17 fameux 17 jours yëpp 17 jours yëpp ñuy complot Adji Sarr ñuy complot Ousmane Sonko ak ñoom Adji Sarr woote na Adji Sarr woo woo nañ ko numéro bii daal mi ngi doon dox ci 17 jours yëpp ci complot bi ñii nii gang bi yëpp ñu ngi doon déggante donc jël ngeen ko ah 77 639 76 88. ak tamit non kooku Mamour Diallo la donc euh, Ahmed Sidi Mohamed Mbaye 77 316 70 19 77 999 30 34 capté ok ñu dem Mamour Diallo moom tamit ñaari numéro la utiliser ci complot bi yëpp du début à la fin Mamour Diallo ku ci nekk ci ñoom ñaari numéro nga yor tey nga woote fii suba nga woote bii suba nga woote bii suba nga woote donc réquisition téléphonique yi li ñuy wane rek laay indi si seen numéro yi donc ñu dem ci Mamour Diallo Mamour Diallo utiliser na ñaari numéro

mais dinaa leen ko jox léegi nii ngeen ngeen ngeen ngeen déglu ko bu muy woo docteur Alfousseynou Gaye waaw mais heure yi bokkuñu moom bu ma koy jox depuis démb mais dañ ma waxoon ma xaar bu may yeewoo fekk naa am na ñu ko joxe mais nañ ko déglu rek. donc euh, euh, laisse-moi peut-être. léegi kii docteur Alfousseynou Gaye la bu Mamour Diallo di woo pour mu changer ci jamonoy euh, corona bi pour mu changer mu fay ko ay millions pour mu changer. lii nga xam ne mooy certificat médical bi ñu déglu ko waa ji nga xam ni dañ ko woo mu ne moom bokkul ci complot bi xamu leen léegi mu ngi nii di négocier waat encore une fois wane nañ vidéo ojo bu muy négocier ak Adji Sarr dinañ wane waat beneen ojo boo xam ni Mamour Diallo woo na docteur Alfousseyni Gaye di ko wax pour mu falsifier CV bi pour mu falsifier euh, euh, certificat médical bi te nee na moom bokkul ci complot bi laalewul ci complot bi acca ñu déglu euh, laisse-moi peut-être le temps de, de voir un peu. Allô Oui, oui, comment vas-tu Ça Bien, merci, Barma. Mais laisse-moi le temps de voir encore, s'il te plaît. D'accord, ok. Ouais, euh, fin de semaine, discrète, discrètement, le plus discrètement possible. Non, pas fin de semaine, il faut qu'on le aujourd'hui. Aujourd'hui ah bon. kooku di reetaan di wax noonu non aujourd'hui aujourd'hui kooku mooy Mamour Diallo mi ngi woo docteur Alpha Seynou Gaye naan ko demal nga changé ma affaire bi nu mooy reetaan noonu <laughs> satan bi nit bu ñu waroon rey bu yàgg doomi xaram jooju di dox tey Sénégal di wax ñu jël ko di ko fal ay docteur directeur ONAS kii imbécile bi xaj bi ki reykatu nit yi kii moo rey quatorze personnes na famille yëpp jóg na Sénégal yëpp jóg révolté wu fayu fayu fayu fayu kii warul dund ki warutul dund ki warutul dund parce que rey na quatorze personnes doomi xaram ji kii nii ay waay jóg leen waaye criminels yi ngi seen biir de Macky Sall di leen fal jóg leen jóg leen jóg leen donc euh, euh, laisse-moi peut-être le temps de, de voir un peu oui oui comment vas-tu ça bien merci Balmar ma ne laisse-moi le temps de voir encore s'il te plaît. d'accord si euh, fin de semaine discrète discrètement le plus discrètement possible. non non non pas fin de semaine ngor laa leen waxoon foofu la aji saar Mamour Diallo yóbboon aji saar mu ne moom Mamour Diallo nee na ngor la dëkk delloo leen fa ma leen waxoon ngor ngor couragement ba ngor fi nga xam ne newoon naa ne aji saar foofu la tëbee woon fi ko Mamour Diallo fekkoon doon ko laal laalaan ba diw ba diw kooy bi Mamour Diallo diw ci kooy bi lii gel hydroalcoolique bi laal aji saar ci taat bi mu ne dugal ay pilule ci ci ci taatam yi donc nee na ko ngor la dëkk yéen a ngi dégg lépp a ngi leer ay ca ñu dem